toujours seen yeewu leen ak euh, sport avec le coach Mass bu fekkente ne pare nañu xool eh? tey lan la ñu indil coach. waaw soxna Bijou. ça va. ça va alhamdulilah. pare ngeen. waaw ñi noppi euh, coach Lazare benn joolaa bu nekk euh, Olympique Club. lekk na ñànkatang bi fi nekkoon yëpp kon. mi ngi nii mi ngi nii daal fàtte ba bëgg a dee moom daal laa diri teel na ko kañ dem ci yow jiw. ani joolaay. joolaay yaa ngi fi de. ñànkatang baa ngi nii. <laughs> vert blanc. ak na na tëtu xam nga joolaay de bisu. moom ak ñoom. est-ce que du ma joolaa sax. kon def ak gay kon def fàtt nañ la ak ñoo la ñii yi joolaa de benn affaire la. tey tey tey loo loo indi coach. waaw tey renforcement la indi tey donc euh, comme ni nga dugg ci sataay bi indi intégration euh, des parties du corps. Mhm. ñëw mu nekk ay squat ak fente yoo xam ni. donc c' est des moments d' intégration ne dina mobiliser beaucoup beaucoup d' énergie. pour brûler le maximum de calories. ok on bu ñu jotalee sunu njaar ak Sénégal yëpp ci Khalifa Léona Niassène bu jógee waaw di ndokkeel ñëpp aussi ci màggal bi nga xam ne génne nañ ci sant euh, sëñ baax a baax waaw Pape Samba boo paree rek ñu dugal musique bi daal dal ci liggéey bi. jaajëf waaw directement. on va démarrer donc ak son hmm. disque. allez prends ton le squat plus donc le premier mouvement lentement on va laisser descendre le voilà lentement et on remonte. on va continuer à faire des squats mais les bras vont changer. en élévation frontale. hauteur épaule. même chose vers le bas vers le bas. cherchez à poser le disque et remonte. Regardez bien, le bus reste droit, même chose, élévation frontale. Très bien. On y retourne de profil, ça ça. Les genoux qui s'alignent avec les orteils et les fessiers loin derrière. Élévation frontale à partir des épaules. Les disques, hauteur épaule. Même chose. Maintenant, vous avez le mouvement. On va accélérer. Allez, les deux. Carrément, intégrer le haut et le bas du corps. En bas. Oh. Toujours les jambes qui travaillent, les épaules aussi. Intégrer le haut et le bas du corps. Maintenant, activer le sang du corps. La partie entre le haut et le bas du corps. Pour des mouvements parfaits. Exactement. Encore deux et ça sera tout. Une dernière fois. Exactement. Coach Lazare. Super. On va attaquer les fentes. Super. Maintenant, tu dois les jambes. On va passer aux fentes. Jambes droite derrière. Jambes gauche devant. Même chose. Lever les disques haut. Alors, remonte doucement. Encore le pied. 4, 3, 2, on Super. Encore. Maintenant, on va à la belle masse yes. avec les fronces latérales. Yes. C'est parti. Là. On tape. On la met tout doucement. Accroche. Deux à deux, le genou ouvert vers le côté. On est là. Four. Three. Two. That's fine. One, two, up, two, up, push. Ahora ven, derrière. On va accélérer. La gauche, c'est parti. Les disques, on va tout relâcher. Avec Coach Lazare, grandissez et respirez. Alors sur le côté, vous bloquez à partir de la taille et poussez-la en jeu côté. on change de côté. On a bien travaillé les épaules, on a bien travaillé les jambes. Allez, on les relâche. Genou vers le sol. Respirez. Gentiment, vous changez. Allez, vous twistez à Donc, c'est pour ce matin. On vous donne rendez-vous mercredi, Inch'Allah, pour d'autres exercices. Sana bisous. Yobol soxna Bijou. waaw coach. yëbbal baa nga merci beaucoup. jërëjëf sant nañ leen gërëm nañ leen. gis nañ sport bi xam naa ni tey ku ko def moom sa yaram dina xaw a féroce. ak joolaa bi nga àndal def ko. waaw waaw gis nga. <laughs> namuñu dara ñëw yokku yokku ñàkk tàng dooli bëggëj. dooli bëggëj bi laay ak tuuti diwtiir. <laughs> ak tuuti diwtiir def ci tuuti géej gi léegi mu neex de. <laughs> jàpp nga lépp. merci beaucoup coach Mass ci sport bi donc dañuy.